wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi din mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaaro bu baax di leen ndokkeel di leen balu aq di balu aq jëpp di ndokkeel jullit yëpp rek ci xew-xew yu tedd yi nga xam ne moom la ñu dëgmal rawatina di weeru tabaski ak bis bi ci boppam di bis bu màgg ci lislaam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu bu baax sëriñ Mbàkke Abdourahman ci jataay bi nga xam ne daaira Muxaddamatul Xidma dana koy faral di ànd ak moom muy émission gàggantiku tey jii ñu ñëwaat fii Daaru Salaam Ndaam ngir fas yéene indi ay bind yoo xam ne dañ ciy gàggantiku ci suñu wàllu diine loo xam ne danañu dimbale fii dimbale ñu tamit fa ñu jëm euh, émission bi di am weer wu nekk ñaari yoon muy le 9 ak le 23 ci weeru tubaab bu nekk bokki jullit yi ak bokki taalibe yi di ci yónnee seeni laaj léeg-léeg ñu joxe ay bind yoo xam ne bind fiq la yoo xam ne dana mën a jariñ taalibe bi ci waxtu wu nekk kon sëriñ bi ñu eh, jébbal la kàddu gi nga nuyoo bokki taalibe yi ak bokki jullit yi ñu jublu ci laaj yi nga xam ne moo fi rot ngir jubat cee gàggante ko aouzu billahi min ashaytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. sëriñ Abdoul Ahad maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi ànd ak ñun ci ëttu xam-xam bi ginnaaw bu ñu siyaaree ñaanal Cheikh bu baax sëriñ Afe mi nga xam ne moo jiite daayiratu Muxaddamatul Xidma ak mbokk yëpp di leen ndokkeel di leen jaajëfal ci taxawaay. mën hmm. nga ko waxee jamono yu nekk bokk ci jamono ñu barkeel yi. ndax ñu ngi nekk ci al ashhurul xurum weer yi nga xam ne suñu borom moo ko barkeel bu ñëwee bu ci leen ci tooñ seen bopp wala tazlimu fihinna anfusakum ah. muy weer yoo xam lu tuwaay doon def ci lu baax li ñuy bëgg mu yokk ndax day fulu luñ ci doon moytu ci safaan nañu bëgg mu kon ñu ngi ci siyaar ñëpp di ci ndokkal ñëpp di ci baal ñëpp àq te sàkku ci ñoom ñu baal ñi jërëjëf eh, mbokk mi dafay laaj mu ne naka lañuy seddalee séddalee eh, ndawalu tabaski ndawal tabaski bëgg nañ ko ca lekk. sopp nañ ko loolu moom. maanaam bu ren ne bu xam bàyyi ko mu jaar la gën moom foos ci dara néew néew. bëgg nañ ku ca saraxe. bëgg nañ ko ca maye. maye ci ginnaaw bu ñu ko toggee wala maye ci bu ñorul lu ci nekk baax waaye nag bu ci jox ku dul ab jullit ndax jaamu yàlla la allahu muy koo xam ne daa ñëw fekk leen ngeen di lekk wala muy sës ngóor ni ci sa kër di liggéey sa safoor la wala sa employé daal la boo xam ne ci kër gi la nekk te ba su fekk ko kenn du ko tari waaye tibb ci di it ñu ay jullit dañ koy tere ay jaamu yàlla. Mhm. su ko defee doon tey ki nga xam ne du jullit lu ngeen xaritoog lu ngeen dëkk dëkk daal parce que li jaamu yàlla. Mhm. sañ ngaa rey sam xar nag ci sa xew sa xew bopp. Mhm. tibbal ko la invité ko waaye moom du du séddu. loolu mën naa bàyyi xel ci dëkkandoo yi. ñi nga xam ne dañoo. bàyyi xel moom. ndax da ngay gis ñu naan dëkkandoo bi dafa rafet bu fekkee ne seen xew-xew ñëw na ñun dañ leen di tibbal ñu nit bu suñu xew-xew ñëwee ñu tibbal ku ñëw daal fekk la ci kër gi moom doo ko tere waaye nag tibb den yit koy tere mooy tabaski. ci ku bëgg a def mhm. man ngay wut sa même xar wala nga wut sa geneen dawal. waaw ah, waaye mi nga xam ne moom nga rey ngir tabaski moom waru leen ci moom bu fekkee ne bëgg ngaa rafetal te rafetal wax na. Mhm. Mhm. Ah, ko jox ko lu dul. macha allah muy toll naa saraxeel suuf na ñetti la la jàmm. sarax ku aajo woo nga koy jox da ngay yelwaan ak néew doole yelwaan ñooñu mën nga leen sarax maye ki nga koy def aajowoo ko waaye daa am jublu yu wute kii bëgg rafetaxal seen diggante la ñi ëpp léegi bu toogee ba ne bu li yàq yi ñu def kenn ku ne yàkkal sa ña ngay dendal xam nga ne tabaski na togg na kon day mel ne loolu buntu maye la yooyu ñett yooyu bëgg nañ ko ci du dagan tamit jaay wala ci cosaan moom denc lu ci sa mos na ko tere wax mos naa wax ne yàpp tabaski kenn denc lépp ñetti fan loolu de moom xam naa booba daa am ay gan ñu ñëw. ëpp ndaay yéex naa bu ñu ko dikkee mu bañ nit ñi dañ càpp yi ñu xiif waaye ginnaaw bi la wax ne ku neex dañ càpp léegi si moom comme sëñ Abdoulaye ñoom yor nañ ay frigo yu mag moom mën nañ ko defar ba kii sax daa daanaka li cëpp tuuti la ñuy bis bu njëkk bi. waaw ah, gis ñu def ci ay mbuus yoo xam ne. loolu de moom baax na moom. dañ ci am yàlla am ci. waaw ah, nga xam ne ay fan daal. kon dagan daganul dal ci jullit bi mu jaayee ci dara boo xam der bi la wala ndawal gi waaw moo tax dañuy wax sax ne la ki la ko feesal mhm. bu ko fay ci ndawal mhm. bul wax ne aaday feeskat mooy jël baat mhm. jël baat bi yoon ndax ak fay la te am xam tëbës kenn ci fay kenn boo ko bëggee xaalis bu koy fay wala nga fay ko bu mu doon jàpp bi su jaay der bi dégg nga jaay dara lu ci bokk ba mu des nag kiñ ko sarax mbaa ñu may ko ko maanaam yow mi tëbës ki la ñuy wax loolu mais donc bu ñëwoon yalwaan xam nga tabaski yeeg dong yi dañuy yem nañu yaram ba yàpp bu bari bu leen neexee jaay ko ñoom. Uh-huh. yow mi may yàpp tabaski bu leen neexee dañ ci marché bi jaay ko yow mi ñu may derub tabaski bu leen neexee dañ ci marché bi jaay ko uh-huh. waaye yow mi nag la wax ne bu ko jaay. Uh-huh. yow da nga doon jaamu yàlla ci xar kon bu ci jaay lépp yàlla ko moom. tànki njëkk yeeg yooyu moom. yooyu buñ ci duggee ci buntu buntu joxe ngir yàlla gi bu baax. mais bañ daal jàpp ko àq. jàpp na force la daal jàpp tànk bi moom goro ko ku ko lekk keneen dangan Euh, xolu jarbaat <laughs> fàlla rey goro joxati yeeli maam hmm. yooyu noonu moom buñ jàppee ne àq la yoo xam ne eh, ñoo ko war a moom hmm. boobaa du dagan na ndax li jaamu yàlla ay fekkee da ngaa jublu yow rek ne moo tax sax li gënoon bis yu bu leen jox yooyu jox leen beneen beneen côté hmm. maanaam bul jox euh, goro bi fàllara ji ndax day jàpp ne moo ko moom waaye man koo tibbal ci ndawal bi li war ne dama koy jox benn muy ku ñàkk ma koy sarax wala ñàkkut ma koy may ngir ne yàpp tabaski dañoo bokk ci may waaye nag yenn parti yi nga xam ne moom daa am ñu gëm ni ñoo ko moom hmm. na nga xam ne di jaamu yàlla dañ ci jaamu jërëjëf mbokk mi dafay laaj mu lan mooy atteb euh, siyaaraat yi maanaam yi nga xam ne dañ koy def ci bisu tabaski xam nga yooyu baax la hmm. ndax bisu fi iid la hmm. su iid dañuy bëgg jullit ñi kenn ku ne ne ci mbégte xam nga dañuy listaare sax bisu iid nit ki ñaawlu maanaam ki mën a am yére dañuy wax ne bisu iid nga sol ci yére yi bees moo gën. Uh-huh. waaye man koo am rek dama wut ay sagar. Uh-huh. loolu maanaam xeeti ñàkk tegeen la diggante jàmm borom. bëgg uh-huh. bis boobu moom yooyu nag ma war rafetal diggante sa diggante sa borom la. ci julli gi saraxe gi nangam bi waaye rafetal sa diggante sa morom jàmm nag mooy balante àq yi. foofu nag li may bàyyiloo mbokk yi rek mooy nañ fexe ba doon dëkk. nga xam nga léegi baal naa la fekk yaa ngi ko dencal yoo xam ne. yow yaa ngi loolu wax lu wérul la. moo tax yu mel noonu lu ci gën lépp lay wax noonu dëgg ci yow bis buy dikkee da occasion la saa boo jéggalee sa moroom jaam yàlla mën laa jéggal kon ñëpp fóot seeni xol loo loo loo dancoloon sa mbokk nga ngir jëkku sànni mhm. na solo kenn ku dem siyaare ji sa mbokk ngir nemmi te fàttaliku li ngeen bokk mhm. bis na ci dëkk yoo xam ne bu loolu duñ mën a gisee ndax xëy na liggéey baag xat-xat ya mhm. waaye nag yooyu parce que boobaa euh, ñi dend ñi xamante ñi seq ñëpp mën a dajawaat kenn ko ne yeesal la nga seq sama mbokk am solo la. jërëjëf euh, mbokk mi defee laaj mu ne ndax dana wér ci nit ki maanaam su fekkee ne teewul jullit it ànd ak imaam ngir ngant wala leneen loo xam ne moo ko gaaroon ba tax julli jiwut it ndax kooku dana mën a rey tabaski te du ci sikk dara du ci sikk. xam nga julli ji ndigal la <coughs> ren di gi ndigal. Hmm. ku mën a boole ñaar nag yëpp moo gën. dëgg la xam ne lenn li nga am loolu ngay def. Hmm. masalan tey am na ñoo xam ne tabaski du sunna ci ñoom ndax mënuñ ilimaan sax boobu mutoonum xar bu tey day bu ko wax nit ñi xaar leen bu yoon amoon xar ay dix minutes ak ginnaaw buñ ñu julee xutba ngeen dem bu ngeen doon doon rendi kon li mu ci man la def li gën nag mooy ku ko man nga dem teewe julli gi ñu rendi waaye koo xam ne da julli gi daa raw xëy na ngir ngànt wala sax danga ngaa tayal julli ji ko kooku sopp nañ nga julli sa kër ñaar rakk waaye nag kenn du rendi moom te ilimaan rendi ko waaye nag ki nga xam ne julli gi da ko war a moom mën naa ko julli ci këram waaye boo waree julli rek. jërëjëf euh, mbokk bi dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci jullit bi maanaam mu rey am xaram sa birit yeeg dee ci am mu gas am pax ci yoon wi wala ci mbedd yi wala bu fay tuur li nga xam ne moom la jëfandikoo ci mbedd bi ndax dana dagan ci jullit bi. waaw xam nga yooyu daa bokk ci lore taaxe. Hmm. naa faral di wax nit ñi ne ak taaxe moom ñun dañ ko bëgg waaye jiwuñu. Hmm. ñun ay kaw kaw dund moo ñu taax yi daay jur yooyu noonu. yooyu bu baree doo am noo koy def. te kenn suñu ko sànni ci mbedd mi. ndax mbedd mi ñëpp ko bokk. bokk na ci yi gën a mata a moytu lor surtout lor koo xam ne yëgoon lor ko. te yooyu da koy waral li wax sana boobu gasoon ci mbedd mi tey am pax tey la yu mel am dañuy gas pax bàyyi noonu léeg-léeg ak gone daanu gone bu ci daan damm yaa ko damm. bu ci faatu nañ koy laaj wax dañ jàpp ne yaa ko sa foo wërta gas fu ne boo fa gasee hmm. lu fa loru rek bu fa xarum jàmbur daanoon loru yaay fay xam leen nit jaar fa fa ay yéreem yàqu hmm. xamu kum doon de waaye gàddu ma ko àq la yooyu yëpp mën naa moytu hmm. eh, fexe ba bu mu loru waaye bu mu lore waaw dor wala diraar loolu nag ñu bari ci bis yooyu dañ ko bàyyi xel ñu ci bari nag li gën a doy waar dañuy den nag kër goo xam ne kër jàmbur gu guddi la wala pàkku jàmbur seen lañ bon li lépp lañ koy loolu tooñ gu rëy la ak jullit du tooñ du islam noonu ak zulmu zulumaatun yawmal qiyaama hmm. mën na bàyyi xel tooñ ay lën ay lëndëm yi neen la yawmal qiyaama ki ngay tooñ mu yëg ko mu ñàkk ko yëg soppaxandiku ci alal jàmbur ci anam goo xam ne gënut wala baaxul loolu mën naa moytu hmm. xëy na nag euh, maire yeeg dëkk yooyu war nañoo def góorgóorlu ñu itam ba yi mel noonu hmm. dimbale nit ñi wut ay barab yoo xam ne wala ay poubelle yoo xam ne yu mel noonu bu amee ñu mën di ko ci sotti àll boo xam ne mën nañ faa sànni ah. bokk na ci li nga xam ne ku ne ci ab dëkk yi li fa dëkk ba ah. war a jàppalante ñoom ci biir ndax ñel am na ñoo xam ne ñàkk fuñ ko def mooy waral ñu tooñ ñu tooñ seen bopp mbaa ñu ah. tooñ seen loolu mooy too sànni dere yi ak kii ci mbedd yi moom baax na jullit bi mooy ko ndax àq yi ndax amuk jaamu yàlla ba noppi wala mm-hmm. bu ko yoreel àq nit ki jërëjëf mbokk bi dafay laaj laaj bi xam naa mi ngi ñëw ci julli gi maanaam lan mooy waxtu wi nga xam ne ci lañu war a julli jullit it tabaski. waa xam nga jullit tabaski naafile la. Hmm. ñu ngi bokk ci sunna mu akkada yi. Hmm. waxtu bu naafile dagan mooy bu jant fenkee maanaam trente minutes ginnaaw bu jant fenkee rek baax na. Hmm. bis bi su jant fenkee ñu teg ci trente minutes na ko yéesal lay lekk foo la fa ba tisbaar bu tisbaar xasee jot moom te julliwuñ julli nga fàtt na moo bu leen korité ñu naan weer yu ko ba tisbaar julli gi day fàtt yoratul julli yoratul jàpp bis boo xam ne day jàpp ne seenu mujj la war a feeñ mhm. bañ na tay la fukki fan mhm. ñu yëg ni feeñoon na ci seenu bu njëkk ba te biñ ko yëg tisbaar jot na kenn dootu julli mhm. wax foofu muy waxtu diggante bi naa fi la dagan mu ne naka la ñuy naka la ñuy jullee it waaw julli it ñaar ràkka la yoo xam ne dañuy bëgg di ko def ci la maanaam barab bu yaatu boo xam ne ñëpp dañ fay xaj xëy na àdduna kii waaye li gënoon ci dëkk yi mag yi fi ne benn jullikaay wala jullikaay yu néew ñëpp dafa daje. Uh-huh. ndax day mel ne mbooloo mu bari mi la ñuy soxla. Uh-huh. moo tax ñu si xeeb jàkk yi. moo tax nag fi ne jullikaay bi it des ko tabax maanaam fi ne bu ñu ko naree tabax uh-huh. am ne fi ne fa ñuy jullee jumaa jàpp gën a yaatu. gi dëgg-dëgg mu yaatu ba nga xam ne ñëpp dañ fay xeeb. kon soxlu ñu ko tabax nañu wut bu yaatu bu dikkee ñëpp mën a teew suñ ko mënta am nag mën bu dee tawit mën nañu jullee ci jumaa waaye loolu mooy mooy mooy ci ci julli gi su ko defee bayaalu yaatu yooyu ñëpp daje fa ñu man koo joxe. Hmm. su ko defee moom julli gi ñaar rakkaa rek la yoo xam ne ilimaan bu dikkee dañoo bëgg bis boobu it bisu bu ñuy kàbbar yàlla bu ñuy bàkk yàlla. Hmm. képp kuy génn sa kër nay wax allahu akbar waxandoo yéen ak santaane wuñ ko ñoo ni daa am kuy dëbbee ñu topp ci aw loolu kenn santaane wuñ hmm. loolu mook mook labbayk yi wax ci màkk nañ ko ñuy bàyyi xel. dañoo bëgg nit ñi di ko def sunna mooy du ñaage ni kenn yi dëbb ñëpp am ñu aw uh-huh. yóbbu kenn ku ne di waxal boppam allahu akbar allahu akbar buñ dikkee ci jàkka ji noonu kon daal li nga gis imaam génn ñu dara ko naan di di wax allahu akbar moom gënul gën taamuwuñ ko noonu de uh-huh. dañu kenn ku ne ko wax di ko waxal sa bopp di dem booy dem yooyu di julli ji dañ ko uh-huh. wax ndànk ma di ko dégg di tudd yàlla ba àgg bu àggee jàkka ja mën ngaa wéy di ko wax ba ilimaan ñëw bu ñëwee ñëpp bàyyi déglu ko ci biir xutba bi saa yoo waxee allahu akbar yow ànd la ak moom waaye da nga koy reen yu xar ñu dem bu dikkee nag kon day kàbbar juróom-ñaari kàbbar door tàmbali jàng kàbbaru armal tekki yeneen juróom benn kab bu jógee kàbbar juróomi kàbbar ak kàbbaru jóg mu juróom benn mu door hmm. yooyu benn bu ñu nekk sunna mokk dal hmm. woon benn da sujjóot xabla salaam boo ci bàyyee benn da ngay sujjóot xabla salaam boo ci hmm. boo ko fàtte woon ba tàmbali jàng nga ilmaan saa yu ko fàttalikoo daa war a dëpp da ngaa war a dëpp kàbbaraat doog jàngal waaw kàbbaraat yi door a baamu njàng mi bu noppee sujud wax de salaam hmm. sañ na leen nit nag àggale njàng mi door a kabar kabar bu baax ngëneelul jiital kabar moo koy raw hmm. waaye du sujud tàmbali jàng fàtte woon ne daa war a kabar ba noppi mu continue njàng ba mi àgg hmm. mu wax mu kabar kabar yi door rukkoo kooku moom dara waru ko waaye nag ngëneelul jiital kabar yi ci njàng mi raw na ko boo xasee rukkoo ba noppi ki nga xam ne maanaa da dafa dafa topp ci ginnaaw imaam ay ay raw ko euh, naka lay def moom. maanaam bu dee mas bokk nga xam daa ñëw fekk ilimaan kàbbar ba tàmbali jàng. waaw boog fekkee ci yenn. day ànd ak ilimaan yi mu fekkee. bu ilimaan noppee ba tàmbali jàng mu dabaatali ko rawoon moom. moom moom moom ci boppam. waaw waaye dafa yelu nag moom bu baax. Hmm. waaw boobaa ba àggal ay mu dóor dégg. Hmm. Ah, moom bi nga xam ne dafa ñëw fekk imaam raw ko benn rakka. Euh, wala mu fekk daal rakka yi jeex mu fekk ñuy taaye wala dara wala mu fekk ñu sëlmal naka lay def nan lay def waaw li waxoon sànq ne ki waxoon ne da ko raw mhm. wala julli jiwut mhm. xam nga julli gi sunna la waaye bu dee ci ma lay nekk sunna mhm. waaye kenn dañ koo sopp kooku moom kenn mu julli sopp bu fekkee nag daa ànd ak imam benn rakka moom bu imam sëlmal day ndax kooku fekk na julli gi imam sëlmalee day ju àggale fay rakka bu njëkk bi ndax rakka bu ñaari lay ànd ak ilimaan kon bu jógee day fay bu njëkk bi kabare mhm. kabaru jëkk bi day kabaraat yeneen juróom benn ngir door tàmbali jàng bu noppee kon daal di ànd déglu imaam euh, ki mu ne lan mooy àtteb déglu xutba déglu xutba dañ koo sopp mhm. dañoo sopp bu ilimaan dee xutba ñu loolu la wutee xutbu ajuma xutbu ajuma moom déglu ko ab sart la mhm. ci julli gi la bokk dafa xaraam ñuy xutba ngay wax bu dee it nag sopp na nga déglu ko waaye nag li mat a moytu mooy jàpp ne lu ñu sopp rek la kon man ñuy xubba naa dem man mhm. ngaa dem si kër ak rendi sam xar fekk iliman na pegu suwaa amoo tabaski mhm. jënd nga naa am lu cher waaye amoo amoo amoo yoolu tabaski loolu mhm. te it nag iliman li muy wax man am na jariñ ko déglu ko jariñu ci boo noppee dem dem dundal su sunna moo gën nag waaye léeg-léeg nga xam dañu yàkkate buñ sërmale rek duñ déglu iliman foofu it baax na iliman yi it xam ne tabaski dafa nekk di wax xutba yu gudd jëru ko mhm. bu yàggee kenn dootul dégg gars yi dañu bëgg ren mooy jurit nit ñi dafa àq dem mhm. kon wax lu gàtt lu yam lu amal njëriñ nit ñi mhm. baax nañu xel bu ci desit di bàyyi xel lu amal njëriñ gis nga doomu aadama saa boo koy wax lu ko amal njëriñ mu déglu waaye su jàppee ni ngay wax amul ko njëriñ wala na koy waxee amul ko njëriñ moo waral benn dul déglu day jóg dem baa bu tewee teewlu dañuy teew na ci yeneen yoo xam ne buñ nappoon neen ne wax duñ ko xam yooyu nag ilimaan yi ñoo ci war a dimbali nit mm-hmm. yoo xam ne ku ci nekk boo jógee mën caa jàll mm-hmm. jërëjëf xam naa lii mooy suñu laaj bu mujj maanaam xikma tabaski daal maanaam nga ci nit ñi njëriñ li ak nuñ ko war a gën a bàyyee xel waaw xam nga nit ñi dañu war a bàyyi xel ne suñu borom ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko santaane mm-hmm. dañ ciy dundal sunna ma ibrahima alayhi salaam cosaan li ma ibrahima alayhi salaam la yàlla santoon mu ren di doomam gi di ko nattu ba mu gisee ne kii kat gëm yàlla am àgg na ci loolu doom ja nangu mu nangu. Mhm. yàlla teral leen jëlee ab gàtt aljanna sunu soosu ne lañ digal yéen a salaam mu di ko dundal. Mhm. wax ko ne ko sàllil rabbika wanhar kon ki koy def mi ngi jaamu yàlla. Mhm. waaye li ma ta bàyyi xel foofu see blaat tamit ko bàyyi xel li wax muy nit ñi nga xam ne du ak aada waaye ibaada la. te parce du aada waaye ibaada la. maanaam ci noonu mm, jaamu yàlla daal waaye du aada waaw du aada du tam mm. dañ ko dañoo dañoo fekk yu bari yoo xam ne ibaada la ñu soppi ko aada mm. ak màkk mi mi ngi ci eh, tabaski mi ngi ñu bari ci ñu koy def warul leen ni koy defee it jaadu gàddu loo xam ne yoon tegula ko maanaam bu ñu lay nettali xese ci am da da ngay da ngay da ngay. waaw bëri na ci barab jafe-jafe lool nit koo xam day ñëw ci barab ne mel na mbokk nañ ma yóbbu hôpital ma ngay lu mbokk moo ma ko nettali mhm. nee na mu yóbbu ko hôpital seet ko daal ay jox nañ kii ay tàngoor ak mhm. ay ay paracetamol wala ay frel gaag yooyu mhm. naa nag mën nañ ma téye <laughs> nañ ma téye daal parce que mu nee na ma xam ne xam na ñàkkut mu ne ko nañ ko wutal nekk mu téye ko dañ ko téye ci suba sa soxnaam daal di ñëw daal ne ko mu ne ko damaa wérér bi indi ma hôpital mu ne ko ataba si nag yow ñaan yàlla ma ma bañ a génn waaye su ma génne ngi wopp nekk ko xanaa xam ne bu jaralee nit ko hôpital ngir mucc ci coono yooyu hmm. mooy nekkatul jàmm yàlla dëgg la hmm. loo xam ne nit dañ la boo ko manee te gis nga man man bi boo ko ci xoolee ñu man ba fi ni ñu ko sant bëriwul hmm. ñu ko sant dañ ko soppi aada yoo xam ne am na ci ñoo xam ne xaram mu weex moom i béjjën mu duuf lañuy bëgg ñaari benn bu yooyu nag dañ ko ci sopp dëgg la sopp nañ mu weex sopp nañ muy xar chaque fois da nga béjjén waaye nekkul ci saak. Hmm. loo taxaw na xarum laadum kon léeg-léeg mu gën a rëy sax te at yi du mat yooyu. waaw waaw hmm. loolu it mën na bàyyi xel. Hmm. ñu bàyyi xel ne léeg-léeg am na ci saxaaba yi maanaam daal daal xel tabaski war leen. ñu bañ a am na ci ñoom yaakaar naa Ibn Abbas la woon. su naa yónnee bisu tabaski. am ko jox ñaar dërëm ne ko dama jël ma ndawal. te koo dajeel ne ko tabaski Ibn a ngi nii. xam naa ne day si ndawal. waaye boobu mi ngi bëgg booba nit ñi dañoo dañoo àgg ci jàppe ko loo xam ne génn nañ ko ci cadre bi mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. su boobaa nag day mat a ñàkk alal ju dul jeex daj ci jeex ba noppi gàddu cee bàkkaar loolu rawatina yi ñu togg jullit bi surtout xotti yi ak ak ak yooyu rek nga xam ne moom borom kër bi da ci daj lu nekk moom dañ ko dañ ko génn ci cadre bi mu doon ndax mën na am njëriñ loole nag ndax xam nga lii mu wax léegi ne mhm. suñu buso bi yi nga xam ne yoon nañ ay consulté yu mag mhm. fi ne bu ñu defaree gàtt it baax na ci ñoom ndax na leen téye dépense ay fan mhm. kon foofu dama lor nga tuyaa ba am nga yàlla ba noppi nag jariñu ngi jël waaye nag la ci ràngee loo xam ne dangay da ngay ñaan yàlla bu mu ñëw maa bu mu la fekk day am léeg-léeg suma dégg soxna soo xam ne nii daa am mbokk mu toll fenn ndax bañ ko waxee tiit ñee hmm. ba àgg ci sa mbokk mi toll na fenn di ñu am yaakaar moom dama xam ne ba mu juddoo la ñaan yàlla mu màgg ba am doom hmm. mu am doom yow ngi tiit yoo ci gàll sa bopp hmm. te yàlla tegula ko nga xam boo soñoon mu yàqu kooku bu ko bettee ne ko ëmb ba yàqu na day béy ne bu ko bu day jooyee jooyee day jinnika lay doon am na yu ko ci gàdd yu mu ci gàddu woon yoo xam ne bu judd woon mu am problème yooyu nag mbokk yi nañ ci bàyyi xel lii ak jaamu yàlla dañuy fexe ba yamale ko fi yàlla ku ko mën def ko ñiy wëreel di ko laaj fu ñu dugg fa waaw loolu yàlla sant uh-huh. na. waaye faw bu tabaski te ba amagu ma xanaa fii de bu yore teroo rek jàmm yëpp mooy am nga xaral. amagoo xar. donc uh-huh. uh-huh. amul solo. barakallah nañ ko nañ ko dugal fi mu doon. noppalu noppal ñi ñi ñi àndal. moom lay bàyyi la xel ñëpp ñaan yàlla it ñu àgg jàmm luñ ci def na ñaan yàlla nangul li mbokk yi ne ñun yàlla moo ay salaam noonu na bu weeru tabaski teroo ku nam ma tabaski loolu bokk na ci xadis yi sukkandiku ba du farata uh-huh. ku ci na bu tabaski bul laal kawar bul laal ay weer bu weer wi taroo waaw bu weer xasee taroo uh-huh. juróom-ñeent ba bëggee bu nopp ba ren di xar mi uh-huh. bu fi dagg kawar genn bu fi lew yi soo demee nag ba julli ba ñëw dañu ren di xar mi nga door sañu def lu bëgg masha allah juróom-ñeent juróom-ñeenti fan yëpp bëgg nañ ko leen woor baax na ci it nag mbuuso bi nga xam ne day fekk bu ko waree <laughs> macha allah buy wari day fekk. juróom-ñeenti fan yi tabaski yëpp. yëpp waaw rawatina ñaar yi mujj. juróom-ñetteel juróom-ñeent waaye yëpp juróom-ñeent yëpp lañ du koy war. waaw. Hmm. Hmm. li ñuy wax ne bëccëg yooyu. Hmm. moo gën fukki fan yi mujj ci ramadaan ay guddeem moo gën ci waaye fukki fan fukki bëccëg yi tabaski ñoo gën ci at mi. macha allah am na xarit bi nga xam lu gën daf lu baax ci bëccëg ndax xam naa ñuy dàkk yow ma arafa bi kon. Ah, boole ci juróom-ñeent yëpp juróom-ñeent yëpp war a boole. ak am ñuy woor bisu tabaski ba ba war a. rey saxaaba yoo xam ne dañ daan génn ci bisu yooyu dem ci marché. Mhm. di kabbar di bàkk yàlla. macha allah bëgg ko ci mhm. mat bàyyi xel la fukki fan ci jiit tabaski. Mhm. jërëjëf kon ñu bàyyi la nga tàggoo kon. jërëjëf sëñ Blaat ñu ngi gàllam di leen ñaan yàlla dafa ñu tawfeex. yëpp yàlla àggale ñu ci ba ñu weesu ko te li ñu def. allahumma amiin mu nangul suñu kilifa yi Cheikh Mouhamadou Mountakha bokkam yëpp sàmm bi sàmm diine ji euh, sàmm réew mi ak ñi ko dëkkee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu euh, jërëjëf sëriñ bi yàlla yàlla nangu ñaan yëpp su boroom jàggal fi Cheikh Mamadul Muntaxa ak mboolem kilifa yi diine yi te defal ñu tawféex weer wu tedd bi ñu nekk ak bis bi ñu jublu ñu àgg ci ak jàmm te teewe ko déwén te suñu borom jàppandal mbir yëpp ci wér gi ak ci poos yi ak lépp loo rek mooy tax mu jàkk Euh, kon mbokk yi gis ngeen bind yi lañu indi woon di ci gàggantiku ci seen émission gàggantiku bi nga xam ne euh, dayrum xadimatul xidma moo koy amal ci weer bu nekk ñaari yoon di ko jaarale ci chaîne bi di MKTV ak euh, GMT TV ci YouTube bi wala ngeen seet ko ci Facebook ak fu nekk rek ci support yi nga xam ne ci wàllu jumtuwaay yi nekk ci biir support yi da ngeen ko ci mën a topp ak fu ngeen mën nekk ci àddina bi ni ko noonu tamit fu ngeen mën a nekk bu leen neexee ngeen yónnee ay ay laaj ci whatsapp ci numéro bii di 78 689 28 28 78 689 28 28 kon ñu ngi gërëm bu baax sëñ Abdou Khadir Bousso mi réaliser émission bi ak bokkam yi nga xam ne ñoom la àndal ñuy yor caméra yi di Serigne Cheikh Diop ak Serigne Bàcc ba di gërëm tamit téléspectateurs yi ñu doon topp yëpp euh, ñi nga xam ne ñooy bind ay message ak ñi nga xam ne ñooy yónnee di ñaanal Serigne bi Eh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen dig daje incha allah ci seen beneen jataayu gàggantiku asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waj'al Huda'ban maskana ta'allumi wa mawdi'a al-fikrati wat-tafahhumi wa maskana al-irshadi wat-ta'limi wa maskana at-taswibi wat-tafhimi